nangu kilifteef waaye tamit bokk na ci lay tax ñu mën a xeeb nit man koo bañ jox cër mooy mu ñàkk kilifa wala mu xeet kilifaam kon kilifa ñun dafa bokk ci suñuy ndono sunuy aada ak cosaan am kilifa daf cee bokk kon képp koo xam yaa ngi ko bëgg a wayafal suñu kanam wala nga bëgg koo doya dal wala nga bëgg koo wàññi dafay mel ne yaa ngi bëre yaa ngi xeex ak sunu mbatit yaa ngi xeex ak sunu ndono mu am nag ay laaj yu baree bari yoo xam mën naa judd foofu mooy kan moo war a ne ci kanam nit ñi ndax kooku ñu teg ci kanam nit ñi ne mooy kilifa ndax dañ koy tànn ndax buñ koy tànn am na melokaan yoo xam ne mënta ñàkk yoo xam ci la ñu war sukkandiku par tànn ko loolu ay laaj la melokaanu relation bi kilifa gi war a séq ak ñu nekk ci gannaawam ban nature la war a am ban melokaan moo la war a am ndax dañuy jàpp ne. ki nga ne mooy sa kilifa nga topp ci gannaawam ndax day tegtal ne yow kooku moo la lépp moo la fépp moo la lépp wala boog da ngeen nekk ay nattango nga jiital ko topp ci gannaawam ndax dañu jàpp ne kilifteef teraanga la ju yàlla teg ci loxo nit wala teef la wala yàlla di gàll ci loosu nit ndax kilif day jàpp ne moom teraanga la ba tax buñ ko ne yaay yilif ba def sàngam mu war a feetu wala mu war a wane mbégteem wala dafa nekk warteef nañ koy gàll ci loosam nga xam bu ñu ko ne yaa yilif barab sàngam mu tiit ndax diisaayu liñ teg ci aw loosam ndax dañuy jàpp ne kon topp ci gannaaw nit def ko muy sa kilifa ndax ak yeewutu lay tege lay tegtale wala ñàkk yeewu lay tegtale fi ne léeg-léeg da ngay dégg nit ñi dañoo yeewu kenn mënatu leen yilif day mel ne kon ñu amoon kilifam dañoo yeewuwut kon ndax dañoo jàpp ne kon am kilifteef ak yeewutu lay tegtale wala ak ñàkk yeewu lay tegtale yooyu kon ay laaj la yu baree bari yoo xam ne ni mën naa juddu ci diggante kilifteef ak ñamu yilif ak bu ñu ko dee waxtaane ñu gis nag ne bu ñu dee xool dundin askanu fi mu ne dañu gis ne ñu baree bari ñi ngi jàmbat ne taxawaayu kilifteef ci biir mbooloo mi day deltu gannaaw fi mu ne daanaka jataay boo toog boo dee may nopp nit ñi danga dégg ñu naan xale léegi amatuñ kilifa wala boo xale yi léegi dañoo war maalatul seeni kilifa de nga toog ci ay jara dégg ñu ne soxna yi di léegi ñoom bi dañoo amut kilifa ndax boroom kër daanaka yilifatul kili këram nga dégg ñu naan njaboot yëf yi njabootu kinaar la dégg leen jiital topp seen gannaaw wala yu mel noonu boo demee sax ba ci kilifa yi diine yi ñun ñu gën a xam te mooy sëriñ si da gis ne ñu ba bari dañuy wànne ne ndigal ak jëfe ndigal ni ko daan defee bu ñu démb ak bërki démb dafa mel ne dafa gën a wàññiku dellu gannaaw ba ñenn ñi sax daal wax ne ndigal léegi mel na ni dañ ko weesu ñenn ñi bëgg gëmloo ni ñu leen ndigal su rawat na ci yenn fànn yi ñoom dañu jàpp ne dañ ko weesu nga gisit benn benn yoo xam ne nii ay taalibe la doon waaye ndigalee dañ ci am ñu ciy jëfe ak yoo xam ne duñ ko jëfe maanaam lañ gis ne ñoom dëppoo ak seen seen gisin ci mbaax ñu jëfe ko lañ jàpp ne demeewul noonu ñu bañ koo jëfe boo ñëwee ci ñi yore wàllum adduna bi te mooy kilifay politique bi kilifay àdduna yi nga gis ne ñoom it fu ñu toll ci jàppal bàyyi ci lañu nekk seen digganteeg ñi nga xam ñooy seenu njaboot ñu waroon leen a yilif ñu koy gis ci grève yi di ko gis ci marché yi maanaam ndoxum ñax bi di ko gis ci maanaam wax ji ak jëf ji lépp luy tegtale ne xëccoo walla boog jàppante ama bàyyil jàppal bàyyil mi ngi dox diggante ñi nga xam ñoo jiite ci wàllu àdduna ak ñi nga xam ñoom lañ jiite defe naa ne jamono ñu toll loolu ku koy waxtaanee Sénégal defe naa ne lu ñu mën a dégg lay doon nga xam ne kon bu ñu ko tënk day mel ni léegi kon règle bi mooy wala boog li fi ñuy sukkandiku léegi mooy kilifteef daal léegi kum neex nga féttéerlu sa kilifa dafa mel loolu mooy régle bi léegi lañ koy settee nag wala boog exception bi nag mooy nga topp ci sa gannaaw kilifa kon yooyu ay lënt-lënt la yoo xam ne ni manis na koo laaj foofu mati na ko sedd foofu neewaat nag nga gis koo xam ne nii dana jéem a def taxaw seetlu ndax xew-xew yi am ba tax kilifteef mel ne lu dellu gannaaw fan lay dellu ndax day dellu ci ñi ñi yilif wala day dellu ci ñi yilifi boog day doon loo xam ne nii ñun ñëpp dañ ko bokk ku nekk am ci loo ci war a def ndax jàppuñ ne am na yenn doxalin yoo xam ne nii yenn ci kilifa yi ñu ngi koy doxal seen digganteeg ñi ñu yilif dana tax ñi ñu yilif dem ba mu yàgg kóolute gi ñu amoon ci ñoom dootu am ci ñoom am nay melokaan ak doxalin yoo xam ne nii dara nga seetlu ko ci yenn kilifa yi ñu koy doxe moo xam ci diine ji la moo xam ci àdduna bi la moo xam ci aada ak cosaan la dana tax ba kóolute gi taxoon doxoon seen digganteek ñi ñu yilif kóolute googu dafay mel ne dafay wàññi ko kóolute googu nag saa yu wàññi ci diggante nit ak ko yilif nag la top top moy mu dem bam yag top nango top ay ndigalam di bayyi ay terem kon lolu war na no xol ba xam ndax lolu rek moy sabab bi ndax jot sëkk ni sop soppi suñu gisiin ndax ni ad nabi soppi ko di dox yëf yi na mu tëddee woon ak nañ ko nasee woon dembu lu ci bare bare am ay nasin ak teddarin yu bes yi ci dugg ndax kon jot sëkk ñu xolaat gisine ak degg ni ñu am ci digënté kilifa ak ñam yilif waaye sukkandiku nag ci jamono ji tam ni muy sopp ko waxoon nañ ko léegi ne gis nañ ne am na jaxase gu mag gu am ci diggante jàppe kilifteef muy teraanga joo xam ne ni dañ ko war a bànneexoo ak jàppe ko muy wërteef woo xam ne dañ ko gàll sawloos dafa am yooyu kon ay laaj la yoo xam ne ni ku nekk ñun nag mën nga caa am sa tontul bopp moo tax léegi ne lii rek la nii la dana jafe ci tombu yu melni ku nek nak man nga ca wax yow nang ko gisee japp ne mbir mi non la demee waye mënon ni lima wax rek lepp non la war a wala bok ni rek la demee mën ta neneen nenen tax kon xalé liñ fi jubal ci lepp da fay dugg ci jangat bo xam jangat nañ ko tombu bi nga lañ joxé ak ñun lañ ci mëna waye lu ci bandi don mën ta ñak ñun ñi dund ci jamono yi laaj yooyu ñu laaj ñu jéem ko wutal ay tont te mu doon tont yoo xam ne nii ku ko dégg dana mën a dal sam xel su fekkente nañ bëgg nañ kilifteef wéy di nekk ci suñuy aada ak suñuy cosaan bokk ci suñuy cëslaay ñu koy jëfe loolu nag la koy man mooy mbir mu nekk boo ci bëggee jariñu da nga koy def li ñuy wax jàngat bu objectif te mooy nga xool ko ni mel nii rek lépp luy farfarloo ak féete nga fexe ba génne ko ci waaye jàngat ko yow ni nga ko gisee dana tax la nga cee jëlee dana mën a doon loo xam ne nii xëy na mën na doon doon luñ mën a sukkandiku lay doon waaye nag li fekk boroom kër a ngi toog ci këram di jàmbat ne man kilifteef gi ma waroon am ci kër gi daa manqué li fekk bàyyi ngi toog naan sama doom cër bi ma waroon jox ci kilifteef ma ko joxut ab sëriñ toog naan sama taalibe ci kilifteef gi ma waroon jox joxuma ko wala boog ndigal li ma ko jox mu ko jëf jëfatu ko kii àtte réew wala moog di nekk ab di njiit cim réew jàpp ne moom itam ñam yilif dañ koo joxut cër bi ñu ko war a jox li fekk ku nekk yaa ngi toog di jàmbat loolu te kenn ci ñun na nga wut a nafaraat sa bopp xoolaat sa bopp la cay sa warteef nga def ko door a xaar ñi ci des ñu def seen warteef li fekk loolu amul nag li ñuy wax ban bi dañ koy yokk tooyaay waaye solution du am kon yàlla day wax ci alxuraanul karim ne nangeen topp yàlla topp ab yón topp yónente bi waaye itam ñi yore méngoo seeni mbir ci seen kanam ngeen di leen topp te ñu gis ne tam ne bokk na ci fondement yi nga xam ne nii mooy ci lañ tabax njàngaleem mag ñu baax ñi te mooy ngirum tasawuf gis nañu bokk na ci ponk yi ko sos mooy jaayante akub sëriñ ba noppi nag nangoo jëfe ndigalam doo ko jéem a analyser doo ko jéem wutal condition waaye saa yu ñëwee saa yu jógee nga jëfe ko ndax dañu gis ne sëriñ buñ dul topp amul maanaa buñ ne diw mooy kilifa gi te kenn topp ko boobu kilifte amul maanaa waaye itam ki liñ ne kilifte waaye kilifte fa xam du joxe ndigal itam amul maanaa kon kilifa day joxe ndigal ñi di ko topp ñaar lu ci manqué rek baatu kilifteef dafay manqué foofu kon nag ñu bàyyi xel ci ne dañuy wax istibdaat te mooy fetteer lu ci sa gis-gis jàpp na yow dong li nga gis moom mooy li wér keneen mën tam gis-gis bu wér doo laaj kenn xalaat doo déglu kenn sabental ñi nga yilif ci lépp doo leen ci bàyyi dara ci xel di xool sa bopp ca kaw di leen xool ñoom ci suuf ñi ko ñenn ñi faral def naan buur ak baadoo la tudde sa bopp buur tudde ñi sa ay baadoo la yaa leen féete kaw amul benn cër boo leen di jox loolu moom li fekk mi nga am ci biir mbooloo yi mënta andi lu ay résultats yoo xam ne résultats yu négatif lay doon ndax dégginu kilifteef ci boppam baat bi ci arab te mooy wilaaya noonu lañ koy tënkee moom boo baat bi ci arab boo ko firi rek dafay daal di wuuteeg loolu ndax bàkko na ci la muy tegtale cofeel dimbale kàttan saytu yépp dafay duggaat ci biir moo tax dañ koy jëfandikoo ci lépp loo xam ne nit daf cee soxla woo ñu saytu ko soxla woon ñu am kàttanu mën koo doxal loolu baatu kilifteef da cee dugg ci biir ni ko sëñ Juba waxee léegi nag xeeti kilifteef yu bari mën nañ koo am ci déggin donte nag yëpp ñoo bokk fa ñuy sotti bu xasee tudd kilifa rek ñoom ñëpp ñoo bokk atte waaye nag mën nañoo wuute ci niñ leen di tudde ni ñuy wuute ci tur itam mi ngi dellu ci ku nekk la nga nekk kilifa la la cay joxu yoon la la cay yoonal sa kilifteef foofa lañuy dellu am na ñoo xam ne nii seen kilifteef li koy yoonal mooy nit ñi wala xeet bi xeet yi ñooy àndandoo dëppoo ci ne nangu nañ nga nekk suñu kilifa jaarale ko ci yoon yi ñu koy jaarale mooy ne yow kon sa légitimité yaa ngi koy jëlee ci sa population ñoom ñoo lay fal ne la yow yaay suñu kilifa ñu nangul la ko kooku kilifteef la tudd kilifteef googu nag moom lañuy gis ci wàllu diine bu fekkee dañoo delloo diine ci cosaan gis ko ci wàllum doxalin politique mooy ne xeet yi moo lay nangul ne la yow mi nangul nga nekk suñu kilifa bu fekkee delloo nañ diini ci cosaan noonu la demee woon politique tam ba léegi noonu lay deme kon képp koo xam ne ni yaa ngi jële sa yoonal sa yoonal sa kilifteef yaa ngi koy jëlee ci delloo ko ci nit ñi nit ñi jox la ko loolu mën naa di tudd kilifteef ci diine mën naa di kilifteef ci wàllum politique. mën ngaa gis loo koo xam tam la koy jox kilifteef mooy aada ak cosaan mooy orf orf ci wolof mooy loo xam dëppoo nañ ci ñëpp nii la waaye nag duñ ko bind fenn. maanaam ci misaal tey wormaal mag jox cër mag loolu ñu ñëpp dëppoo nañ ci ne daa war waaye léeg-léeg doo sax fu ñu ko bind nii la war nii lañ ko nii ak nii lañ ko a def ci misaal tey ñu ne la boo doon takk soxna ci barab sàngam téeméeri junni moom lañ fa baaxoo joxe ci soxna loolu orf la binduñ ko fenn waaye nag ñëpp dañu dëppoo ci ne kon saa yooyu takk soxna téeméeri junni yooyu moom mooy liñ baaxoo def kon orf mooy li ñu baaxoo def te duñ ko bindi fenn am na kilifteef yoo xam ne nii foofu lay sukkandiku bo delo ci njabot yenn njabot yenn famille pour nga nek fa kilif kilifa moy da ngay mag ci njabot rek ku fa mag rek yaay dal du nek kilif man am do gis fenn fuñ ko bind yaxal ko fa nas ko fa waaye fini automatiquement mag mi nek ci kil gi fu njabot gi su fi joge rek ka ca top mom dal di top automatiquement lolou xeetu kilifteef la lolou lañ gom da fay tegu ci aada ak cosaan man na dem sax nak ba nek alal alal ci bofam mën naa nekk cosaanu kilifteef am na ñoo xam seen kilifteef dëgg-dëgg ñu ngi ko teg ci alal loolu ñu oligarchie oligarchie mooy ñi nga xam ne nii mbooloo mi topp nañ seen gannaaw waaye seen man-manu alal moom la ñuy jëfandikoo ba mbooloo mi topp ci seen gannaaw kon kilifteef moom genn la maanaam itam menn la àq ak yelleef yeeg warteef itam daanaka ñoom ñëpp ñoo ko bokk kon tur yi rek la ñuy wuute tur itam nekk wuute gi mi ngi dellu ci ku nekk lay yoonal sa kilifteef foofu lañ koy delloo xëy na kon bu ñu waxtaanee ci lan mooy kilifteef dëgg-dëgg ak yan façon yooyu ñu ci waxtaanee danañ tënk tuuti ci lislaam moom fan la teg kilifteef fan la koy wéer waxtaan ci àq yi kilifa am ca ñam yilif ak warteef yi nga xam ne nii kilifa am na ko diggam ak ñamu yilif ak lan mooy waral léeg-léegi nit ñi di moy seeni kilifa juyoog seeni kilifa ak itam danger bi nga xam ne am na ci ñàkk kilifteef ak yan ngirte yan résultat moo ci mën a juddoo loolu xëy na mooy doon tënkub waxtaan kon bu ñu nee kilifteef te wilaaya xëy na baat yi ñun lépp ci arab moo tax bu koy xamle dañ koy delloo ci làkku arab ci làkku arab wilaaya danay tegtale ak jege ak jege boo nee ustaas juma yajlisu bi ma fi fi mi ma yajlisu bi jaani bi mi ma yali nii dafay tegtale mi ngi toog ci sama wet kon jege ñaale gogu ak gugu euh, gogu batu wilaaye da koy firi ci làkku arab kon nak buñ ko indee ci niñ koy term ci terme ci wàllu xel xalaat dafay tegtale sultan sultan mooy pouvoir wala bo kàttan kàttanu atte dafay tegtale tam kilif manam imara te mooy njiitu ak nguur ak la nga xam ne nii itam la yilif moo tax léeg-léeg yenn yenn yooyu boo ci doon raison dañu naan wilaaya lañ koy tudde mooy la nga xam mooy moom la kilifa ga yilif léeg dañ koy tuddee baatu wilaaya moo tax kon bu ñu koy waxtaan day mooy baat la boo xam ne boo koy waxee rek danga yëg ci biir wax ji ne danay tekki saytu saytu mbir nooy saytoo mbir ba teg ko ci yoon waaye itam danga nga mën a dégg ci biir kàttanu mën a saytu mbir ba man koo doxal waaye itam da dégg ci biir jëf yoo xam ne nii boo saytoo am kàttan gi ba noppi nag jëf ji ngay jëf ba mën a woyal la nga xamam nga xalaat kon su fekkente ne saytu nekku ci kàttanuk saytu amul dox doxiinu saytu amul baatub kilifteef dootu wér foofe moo tax baat bi ci làkk arab ndax ñi ngay saytu tam il faut nga jege leen ñi ngay saytu il faut nga di nekk ak ñoom di leen gis ñuy def ñuy def ngay def ñu gis ñuy def ngay gis kon yooyu dafay duggaat ci baat bi kon baat bi nañ koy firee ci làkk wolof ci làkku arab ak nañ koy firee ci wàllu xel ak xalaat daanaka ñoom ñaar sorewul moo tax kon baatu kilifteef mooy liy lënkale diggante nit ki ak ku dul moom ci dundiinu askan wi ak ci wàllu politique wala doxalinu réew mi ñu ne nag balaa tudd kilifteef nag dafay tegu ci ki koy def am conscience wala conscient ci li muy def ne moom nangu na diw nekk sama kilifa diggante ñaar ñu ko séq ku nekk kenn du la forcé force bu jaxasee dugg rek dootuñu ko mën a tudde kilifteef waaye kilifteef day fekk yow nga nangu ñu yilif la waaye itam ki la yilif nangu laa yilif loolu ñu alaaxa taw ya lay doon maanaam ak coobarew daf ciy feeñ léeg-léeg loolu nag mooy waral kon boo nangoo topp ci gannaaw nit ngir ne mbooloo mi ne ñoko ko nga top ci gannaawam wala sax ngir ne dafa am xalaat nga ak mom ci xalaat ba mu jitu diko def nga di ca top wala mu doon pas-pas bo xamne ni da ngeen koo bok mu jitu ci nga di ca top waye nga diko def ci sa ciobare loolu lañu tuddi kilifteef loolu nag mooy tax nit nangoo jëf ci ron keneen mu koy digal muy def mu koy tere muy bàyyi mooy tax itam nit ne ci ron kenen te lépp lu muy def di ko ballaloo ca wala boog di ko inspiré woo ca ki nga xam ne ni moo ko féete kaw loolu nag ay ay darajaat la danañ ko jëfandikoo suñ digg diggante yàlla ak nit ñi mooy kilifteef gi yàlla am ci nit ñi kilifteef la yàlla dafa naan allahu waliyul lazina amanu yaxruju mina zulumaati ilan nuur kon yaxruju mina zulumaati ilan nuur sunu borom ne maay maay kilifa ñi gëm waaye nag foofu da ngay gis ne jëf daf cee mooy lu muy def mooy daleen di génne ci lëndëm di leen yóbbu ci leen mooy di leen teg ci ak njub kon baatu kilifteef dana feeñ foofu ba ci kilifteef gi yonente yi am ci kaw nit ñi ndax jàpp guñ jàpp na ñoom la yàlla yan leetar bi jóge ci moom ñu ñëw war ñu ko jottali te ci kaw suuf it dañuy gëm ne yonente yi dong ñoom la yàlla def ñoom seen kilifteef ñu ngi koy jëlee ci yàlla yàlla moo leen sàmp def leen ay kilifa nit ñi war a topp seen gannaaw ñoom nag kese kese ñoom ñoo am sañ-sañ boobu keneen ku dul moom nag kilifteef goo mën di yor li ci ëpp yaa ngi koy jëlee ci nit ña nga seqal moo tax kilifteef giy dox diggante nit ak nit moo waral tomb waxtaanu tey kon kilifteef gi yàlla am ci nit loolu moom kenn werante wu ko topp gi ñu war a topp yeneen itam ndax yàlla moo ñu digal ñu topp leen loolu tam def naa ni kenn werante wu ko maanaam werante du ci am wala boog du ci bari kon kilifteef dox diggante nit ak nit moom la ñuy waxtaane tey mooy kilifteef gi nit ki am ci boppam waaye itam kilif geef kiy dox diggante nit ak ñamu jaboote maanaam diggante wayjur ak i doomam wala diggante atte kii atte ak ñami atte wala boog diggante ab sëriñ ak ña topp ci gannaawam ñoom ñëpp nag li sunu borom waxoon ci aaya bi daf leen cay wàll man sunu moom doone man maay seen kilifa wala boog may kilifa ak ñi gëm waaye nag li ma seq ak ñoom mooy teg leen ci aw yoon mooy génne leen ci lëndëm yóbbu leen ci leer te loolu mooy leen di jariñ mooy kon dugal leen ci li nga xam ne ni moom moo leen di jariñ kon kilifteef googu tam nag saa yu nekkee ci diggante nit ak nit na ñuy bàyyi xel ci ne loolee daf caa war a juddoo te mooy yow mi nekk kilifa foo toll di dox ci liy jariñ ki nga xam ne nii moom nga yilif moo tax kon fa ñuy jële seen kilifteef li ñuy wuute wuute ñoom ñëpp ñoo bokk ci fi ñuy sotti te mooy fexe ba ñu topp sa gannaaw seeni njariñ ak seeni intérêt nga mën leen ko sàmmal moo tax kon li ñuy wax ci imaam te mooy kilifa la kilifa la di ko wax ci xalifa kilifa la loolu la wax ci président moom lañu wax ci keneen ak keneen moom la ñuy wax tam ci ki nga xam ne nii mooy kilifa njaboot gi te xëy na mën na am moo ci mag xëy na am na baat bu ñu ci yokk léeg-léegi mu naan ñu tuddi ko waliyul amr mooy kii ki ngoo mbir loolu nag moom daanaka baatub alxuraan la terme alxuraan la boo xam ne fés na ci lool te mooy ki yore atte bi ki yor dogal bi ci loxoom ki nga xam mbir mi ci loxoom la nekk mu cay saytu di ko doxal di ci atte kooku lañuy ñuy tuddee waliyul amri mooy ki méngoo mbir mi moo tax ci misaal mën nañu wax ne boroom xam-xam yi ñoom ñooy méngoo mbiri diine yi attekat yi wala bokk ñi yore nguur gi ñoom ñooy méngoo mbiri àdduna kon ki nga xam ne nii mooy méngoo mbirum diine kii de wax nangam dagan na nangam xaram na buñ war nañoo def nangam war nañoo def nangam te di ko sukkandikoo ci dellu ci yax yi wala boog li sunu borom yaxal ci alxuraan karim wala atte yi yàlla atte di ca dellu kooku lañu de boroom borom xam-xamu diine kilifa la kilifa la ci kilifa yi kon mooy boroom xam-xam bi nga xam ne ni mooy méngoo lool waaye itam ki nga xam moo méngoo mbiri àddina yi nga xam ne lañ cey def baatam lañ cey déglu te lam cay wax moom lañ cey jëfe mooy digle mooy tere moo naan diw nañ teg ci kawam lii nañ ko tëj nañ ko tijji moo naan diw nañ ko teral nañ ko yëkkati nañ ko teg ci suuf mooy fal kii di folli kii mooy mooy affecté kii di indi kii ak yu mel noonu nga xam ne daal lépp luy baatu doxal ci loxoom la ne kooka tam wali amru lañ koy tuddee maanaam ku méngoo mbir lañ koy tuddee kon baat bi xëy nañ ko dugal ci biir kon kii méngoo mbir daal mooy ki nga xam ne mbir mi ci loxoom la nekk mu koy saytu di ko doxal kilifteef googu nag ba àdduna sosoo ba léegi daanaka xalaat doomu aadama boo mënta gis dana am fu mu ko wéer xëy na ñun bi ñu ci gën a jege te mooy diine lislaam laaj na ñu xam moom fan lañuy sukkandiku ci lislaam pour nit mën a nekk kilifa ci mbooloo mi lislaam ci lislaam bu ñu delloo ci gëstu ci yenn ñi ci bind ñu baree bari dañoo gis ne kilifteef ci lislaam mi ngi sukkandiku ci li ñuy wax compétence maanaam lan lan lañ la war a def kilifa mu doon loo man waaye itam mi ngi sukkandiku ci nga nekk nit ku maandu mooy lañ la jox nga war ko yilif nga dëja dox doxiin woo xam ne nii doxiin wu maandu lay doon waaye itam dana sukkandiku ci ne doole ja nga yor ak kattan nga nga yor ba mën a doxal yaa ngi koy jëlee ci nit ñi nit ñi ñoo lay jox ñoo lay ñoo lay jël mbir joyal la ko jox la doole joyal la ko ngir nga mën a doxal yaa ngi koy jëlee itam ci ñi nga xam ne ni ñoom ñoo yore fas ak fecc ci mbooloo ma mbooloo moo dem day am ñoo xam dañuy yore fas ak fecc boo demee ci bi fi Yonent bi door a ba ñuy fal Abubakar Sadiq am na mbooloo mu ñu mbooloo moom fas jamaatul xàll wala alaqad mooy ñiy fas ak fecc mooy ñiy noso ka nocc ñooñu nag ñaari ay nit lañuy doon ñoo xam ne nii dañuy xam ci ñoom ak mbaax waaye xam ci ñoom te ne ñoom nit ñu am indépendance lañ mooy ne. amul kenn ku leen mën a influencer bañ jël décision boo xam ne nii waruñ koo jël ay nit lañuy doon ñoo xam tam seeni jaar-jaar ak seenu dund may na leen ñu am lu baree bari ci expérience boo xam ne nii dañ ko mën a jariñoo foofu waaye itam seeni jaar-jaar raxas na ci ñoom lu baree bari ba yu baree bari mënatu leen a fëkk waaye itam ay nit doon ñoo xam ne nii danañ xam li ñu war a sàmmoonteel ci nit bu fekkee dañ koo bëgg a yox jox mbiri mbooloo mi mu koy saytu kon ñooñu léeg-léeg da nga leen fekk ci barab yu baree bari ñooñu nag am na yu baree bari ñoom ñooy tànn kilifa ne kii moom lañuy teg ci kanam mbooloo mi mën nga ko tudde majlisu suura ni ko ñeen ñi tudde conseil consultatif wala yu mel noonu wala sax nga tudde ko parlement wa al daal mooy mbooloo mi koy def léeg-léeg ñu delloo ko nag ci nit ñëpp bokk ko di ko defandoon kon liñ jublu ci fas foofu mbooloo mi fas wala mbooloo mi nos mooy mbooloo mi nos noseenu mbooloom jullit yëpp wala mbooloom nit ñëpp rek ci seen yitte yëpp nag ak seen doxalin yëpp moo xam doxalinu saytu réew mi la moo xam doxalin administration la moo xam doxalin tëral yoon yi atte yi ak yëpp dañ cee nese ko nocc buñ nee ñiy nocc nag wala ñuy fecc nag mooy ñi nga xam ne nii dañ dem ba gis ne lañ nasoon kat am na yu baree bari yu ci dugg yoo xam ne nii war nañ koo tasaat nasaat ko organiser ko tegaat ko ci yoon loolu nas ak nocc ñooñu nag bu ñu koy def ñu ngi koy sukkandiku ci principe bu diisoo di waxtaan ak ñi ñu war a waxtaanal balaa ñoo jël la ñuy jël ci ay dogal ñu waxtaan ak ñooñu waxtaanal foofu nag bu ñuy xool lislaam da ciy dëppoo ak mboolem système moderne yépp yi ñu xam ci mooy wàllu démocratie yi nga gis ni yu baree noonu la ñuy doxe am na ñoo xam ne ni dañuy fal parlement bi parlement bi ñu tànn seen biir fal na kii mooy jiite réew mi wala yu mel noonu wala boog ñu delloo ko ci biir mbooloo waaye daal lu ñu ci mën dool dañuy xam ne daal nit mënta am légitimité jiite mbooloo mi te delluwoo ci biir mbooloo mi kon kilifteef ci lislaam du lu ñuy donn kenn du ko donn ci bu dee ci lislaam kese kese nekkul lu ñuy donn amul tam benn yax bu wér ci alxuraanul karim waxuma nag yenn kii waaye alxuraanul karim daal gisuñ ci benn yax bu wér boo boo xam ne boo war a nekk kon lépp dañ koy delluwaat ci biir nit ñi noonu tam dañ ko gisee ci histoire lislaam niñ ko sose donte na xëy na pas-pas nekkub jullit mën naa nekk lu ñuy bàyyi xel ci boo waree jiite mbooloo mi surtout rawat na ngay jiite ay jullit waaye sart bi ci ëpp solo moom bi ñu jox priorité mooy nit ku maandu nit ku maandu lañ gën a soxla ci bu ñuy tànn kilifteef moo tax boo demee ci yenn bindkat dañ naan la nguur dey mën naa sax yàgg lool ànd ak kéefër maanaam yéefër mën naa jiite mbir mu sax yàgg lool waaye nee na nguur moom mënta yàgg ba ànd ak tooñ nit ki lu mu nekk nekk te bu fekkente ne la muy jiite ak tooñ la ci dugal boobaa nguuram du yàgg waaye nag su ne même doonul ab sax wala bokkuñu pas-pas waaye nag mi ngi doxal ci maanu ak nguuram mën na yàgg lool loolu def naa bu ñu bu ñu delloo ci histoire Sénégal danañ ci mën a am seetlu bu mel noonu. moo tax ñenn ñi dañuy gis ne sax léeg-léegi jiital ku ñu bokkulul pas-pas te maandu moom lañuy ñuy jiital ci jiital koo xam ne ab jullit la ba noppi di tooñ wala jullit bu maanduwul loolu xëy na gisin la ci ñenn ñi nga xam ne ñu gëstu ci wàllu kilifteef ci lislaam moo kon sart yi ñuy sukkandiku rek ci bu ñu tànn kilifa ci te di ko delloo ci diine lislaam mooy maandu gu ànd ak sart yi maandu war a àndal waaye tam mu am xam goo xam dana tax bala mu war a jooxe mën koo jooxe waaye tam mu am xam-xamu yu bees yiy wecc yu wàcc xew-xew yi xew te amutoon wala boog yi nga xam ne ni mi ngi am te amuñ woon atte bu leer nañ ci mbir moom nga xam ne wàcc na te doon lu bees danañ bëgg tam mu doon koo xam ne nii ay cëram dafay mucc dégg bi gis bi dañu bëgg mu doon koo xam ne ni yooyu du manqué ndax yooyu itam dañ koy soxla ci kilifa yooyu cër yooyu dañ koy soxla ci kilifteef waaye nag rawatina nag mu am làmmiñ wax mën a wax ku am fasaxa maanaam sa wax leer dafa bokk ci li ñuy soxla ci kilifa ndax mooy tax la mu war a jot li mu mën koo jottali cër yooyu bu fekkente ne mel na ni mu war a mel mooy tax la mu war a jonjoon mën a jonjoo ak moom waaye nag bu fekkente ne cër yi muccut na melu na war a mel dana tax lenn lu baree bari du ko mën war naa doon koo xam ne nii fu mu bëggee jóg mën a jóg maanaam koo xam ne yëngutu dana ko yomb jóg dana ko yomb waaye tam mu am gis-gis bu leer nañ bu xóot te leer nañ ci naka la war a doxalee mbirum mbooloo mi naka la war a sàmme njariñul mbooloo mi waaye ak njàmbaar jàmbaar mooy doon kilifa kilifa jàmbaar lay doon mooy ne yow dañ laa jiital ci kanam mbooloo mi lépp luy ñëw yaa ko war a njëkk a dékku balaa agsi ci mbooloo mi kon jàmbaar mooy mën a nekk kilifa waaye tam war bu jàmbaar itam mooy ne ca kanam kuy topp ci gannaawam topp ci gannaawam xam ngeen yéen sallallahu alayhi wasallam noonu doon doxale bu ñu mësaan dem xeex xare ji ànd ak mbooloo mi dem ca xeex ba ñu koy gis donte xëy na kii kon yooyu moom gis nañ ne mënta ñàkk ci kilifa kilifa loolu nag ni ñu ko gis lislaam nag kilifa gi ñuy tànn gu mën di doon loolu moom mënu cee ñàkk bu dul loolu rek na mu war a doxe dootu ko doxe mu am nag ay warteef yoo xam ne nii képp ku jiital dan la war mën nañ koo tënk nag ci ñaar yu yu yu lalu ñaar yu fondamental yoo xam ne nii moom képp kuy kilifa mënta ñàkk nga di ko doxe di ca def bu dee ci lislaam dañ naan la kilifa guñ jiital ci di jiital la ci turu diine la la war ci njëkk yow mooy diine jiñ la jiitale nga di ko sàmm moo tax mënuñoo dégg mu ko nag ñu naan kilifa ak diine la ba noppi muy def luy màbbu diine loolu ku ko def yow kon maanaam kilif maanaam sart ba njëkk ci kilifa wala ba wartee ko njëkk ci yow moom wàcc nga ko kon sàmm diine ji tax ñu jiital la mooy lii war a jiitu ci li ngay def te mooy mu feeñ ci say jëf di feeñ ci say doxalin su fekkente ne kilifa yi ñu am na ci wàllu àdduna nag ñoom it am na chart boo xam ne nii moo ñu tënk te mooy remplacer diine ji ñun mooy constitution bi kon képp kuñ jiital ci wàllu àdduna ci réew sa wartee fa njëkk mooy charte réew ma nga sàmm ko ak yeneen système yi nga xam moom lañ nos di ca doxal réew ma yow sàmm gi yow la war moo léegi dañu di garant ñu leen di ay garant de la constitution maanaam ñoom ñooy sàmm ñooy garanti constitution ba kenn du ko génn kenn du ko jalgati bu dee ci kilifa ak aada ak cosaan la jëkk ci seen warteef mooy ndono la ñu di ko sàmm liñ amoon mooy suñuy baax démb ak bërki démb ñu di ko sàmm bu fekkee nañ laa jiital ci aada ak cosaan suñuy maam am nañu yu baree bari yoo xam ne dañu ko daan yow boo ñëwee weddi loola ba ko de ba modernité wala yu mel noonu pousse la ba nga ne loola na loolu daal dañ ko fi war a jëlee yow sa kilifteef kon warteefu ci njëkk moom wàcc nga ko ndax ndono loolu moom lañ la te boo ko sàmmul rek kon wàcc nga sa kilifteef kon warteef fi njëkk ci kilifa mooy la tax ñu fal ko wala boog lañ sukkandiku ba fal ko loolu moom na ko sàmm ñoŋal ko ba bu koy jël di ko jox teg ci yeneen loxo. bu ko yokkutam du ko wàññi beneen warte bi nag mooy ni muy saytoo àdduna bi ni muy doxale àdduna bi ba mën caa jariñ mbooloo mi ak fa mu koy sukkandiku bu dee ci koo xam ne ni dañ koo far ci turu diine dañuy bëgg lépp lu muy doxal ci suñuy mbir mu jiital ca diine maanaam mu lal ko ci diine di dellu ci diine di nos di nocc lépp lu muy def daal da koy delloo ci diine bu dee ki nga xam ne dañ koo jiital ci wàllu sunu dundal aduna te moy sunu njitum rew wala sunu president dañuy bëgg momi lepp lu muy def mu delloo ko ci sat rew mi te mu bañ a juyoog sàtt réew ndax lool rek moy mëna tax mbolom rek day am lu ko teunk mbolom nek day am lu ko teunk la ko teunk nak ngir dundu mbolom mëna juk teggu ci yoon ñu mëna réaliser seen objectif yi bëgg loolu moñu koy mëna may mo tax léeg dañuy joxe ne la sayumat. mi ngi melne sayu balaa tudd ay matt da nga koy takk fii ne boo demoon ci àll ba dajale ay matt takkoo kenn du ko tuddew say waaye say yu da nga koy takk li nga koy takkee nag yaa xam lu mu doon mën naa doon buum gu dëgër mën naa doon sagar wu ñor waaye daal lu mu ci mën doon boo ko xeebee ba tas ba dagg ko moom dootu amu say ay ay ay benn bi ay matt nga am naka doon tam mbooloo mu nekk dafa am lu leen di tënk la leen di tënk nag maanaam jub na jubut doy na doyut buñ ko xeebee ba xëtt ko mbooloo moom dootu am moo tax fi nekk nii tey da la gis ñoo xamne ni dañ nan sart rew mi teggul ci diine nak nangam japp ne war nañ ko waye sart ni nga xex xef fi nekk bis boo ba xettu ko mom am réewam dootoo ko am leneen am kon li tax ñu sukkandiku ba fal la lolu kilife gum manti don dang ko wara ñongal sam ko ba kenn du ko jalgati kenn du ko xët loolu mooy tax njariñ yi ñu soxla ci aduna intérêt nit ñi ne ci aduna nga man len ko samal waye nak ñu bayyi mbolo sa loxo mbooloo ma tase sa loxo moom kilifa gu nekk war nga koy daw te loolu bokk na ci liy tax mu dal la mooy la taxoon ñu fal la wala boog lañ sukkandikoon ba fal la nga ñëw sàggane loola kilifa gu nekk itam bokk na ci la ñuy sént ci moom maanaam moom jéego yi tax ñu mën a wéyal liñ nos moom lañ koy jox maanaam mbooloo mi bu ñu amee xalaat ñu ñëpp ba nos ko ba tënk ko nag wéyal gi moom ci kilifa gi lañ koy delloo kon ñun mën nañu ami xalaat ñu ñëpp gis gisiin yëpp ñu boole ko nag tënk ko nag wóyal gi nag ndax dañ koy def duñ ko def loola nag ci baatu kilifteef ci lañ koy delloo ni muy nose li muy def lépp nag ba mën a réaliser loolu tam ci moom lay dellusi kon moom mooy fexe ba li ñu théoriser wala boog li ñu xalaat gis-gis yooyu mu fexe ba def ko ay doxaliinu àdduna ay pratique yoo xam ne nii dañ koy dund di ko gis kon ñaar yooyu moom kilifa gu mën di doon sa warteef la nga di ci xëy di ci gont te boo ca nekkee nag yaa ngi dox ci liy jariñ mbooloo mi saa yoo ca noppee dox nag yaa ngi def ci li nga xam ne nii xëtt nga sàtt bi taxoon ñu teg la am nag ay melokaan yoo xam ne nii il faut mu daje ci kilifeef gu mën di doon ay jikko la ay ay ay yoo xam day ne ci nit kilifa gu nekk ci moom ñu ngi koy séentu jikko yooyu ne ci moom ndax mooy tax mu mën a soppi lañ doon xalaat def ko ay jëf bokk na ci lu mel ni ci salte kilifa gu nekk war naa am wane xiir gu mat sëkk ci mission bi ñu ko dénk mu ne dinaa ko jooxe ba mat sëkk dara du ci manqué xir googu kilifa waru ci am sago ndax dafa bokk ci yi tax nga mën a dara war nañoo gis ci kilifa tam muy doon koo xam de nangoo dem ba jeex tàkk ci lañ ko dénk lu mu laaj rek day dem ba fàtte boppam sax fàtte léppam ngir ne liñ ko dénk war na koo wëyal waaye tam war naa nekk koo xam ne nii ak sellalam day mat la muy def lépp da koy def te di ca gis boppam maanaam luy jariñ nit ñi rek wala boog ñun ngir yàlla doo nga tax mu di ko def luy jariñ nit ñi muy doon nit koo xam day dem ba effacé wu moom boppam da ko effacé dootu gis boppam waaye mbooloo mi lay gis mooy ne buñ kuñ xasfal ne la yow lañ def ngay kilifa du sa doom du sa soxna du sa kër du lenn loo xam ne nii naa dox sa digganteeg nag la tax ñu fal la nga di ca dox di ca wax mooy dangaa war a fàtte sa bopp ngir mbooloo mi mën a jëm danañ séntu ci yow tam nga am jikkoy maanduute ci ñi ngay jëflanteeg nit ñi ñëpp sa njaboot lañ ñëpp yow lañ yilif yaa leen yilif ñu ne sa ruuf sa suuf di dox say ndigal kon nag ni ngay jëflanteeg ñoom ñëpp war naa tegu ci ku nekk lay àqam ak yelleefam nga cee jëflanteeg ñoom noonu mënuñoo séntu tam ci kilifa moom koo xam dañ ne fal nañ ko rek mu jàpp ne maa féete kaw ñëpp. kon dal teranga tek nañu ko sama loxo dama ko wara a jariñoo léeg ñu ko dinaan ku fal fal sey mbok wala minun lolu bañ falé aw bakri sadiq radhiyallahu anhu discours bu mu jëk def bokon na ci loolu dafa waxon yeen nit ñi de ma ngi leen di xàmmel ne tek ngeen ma ci seen kanam may seen kilifa waye gënuma leen kenn rek la ci yeen kon suma jubale na ngeen ma top suma defé defee na ngeen ma jubanti loolu la Aboubacar waxoon bañ ko falee kon kooku moom teel naa xam ne kon nag léegi mbir mi nii la tëdd war naa nekk nit ku nangoo diisoo kilifa dee diisoo wërta xeeb dara lu mu tuuti tuuti jéego bu gàtt gàtt balaa koo jéego war na caa diisoo ñam ca war a diisoo wërta sàggana itam benn gis-gis nag gis-gis lu mu tuuti tuuti bu ko xeeb jël ko boo jëlee gis-gis yëpp yëpp nag boole ko nag ak sa gis-gis yow nag man ko nag doo cee mën a sukkandiku ngir mën a jël décision bi nga xam ne nii moom nga war a jël kon diisoo ci melukaan la bokk waaye itam kilifa danañ sént ci moom muy nit koo xam ne nii ku nooy lay doon ku nooyu wet neex a jaxasoon laa biir mën a jëflante ak ñëpp waaye itam loolu la ñuy séntoo ci moom safaan bi mu doon ku tar koo xam ne nii ku jàdd moom bu lay teg ci yoon du ci caaxaan kon da ngay boolee nooy ak tar bu nooy jotee nga nooy waaye bu tar jotee da ngay tar ba ñëpp gëm ne yow mi gën ndekete xanaa du waa ji ma xamoon Muawiya ku kilifa la woon ak lu ñu ci mën di wax nag kilifa gu mat kilifa la woon ci histoire de l'islam nee nañ wax ne day li ma séq ak nit ñi man doon genn kawar la xam nga ñoom seen kawar daan gudd nag moo tax ñu ci misaal mu ne bu doon genn kawar la ñu jàpp fale ma jàpp fii kawar gi du dëgg mukk kawar li muy sew sew nee bu ma ko séqoon ak nit ñi li ma séq ak ni fekkoon kawar la nee na bu ñu jàppee cat li ma jàpp cat lii kawar gi du dagg mukk ndax neen suñ suñu xëccee ma bàyyi suñu bàyyee ma xëcc loolu mooy kilifa kon kilifa du toppee boo gisee ne yëf yi tar na ba tar ba tar yolomalal soo gisee bi yëf yi yolom naa yolom ba nit ñi nar a def ne yëf yi ay caaxaan la nga xëcc mu dagg kon loolu kilifa dañ ko sént mu boolee nooy ak taral am na ci mag ñi toppoon sëriñ bi sëriñ Mbàkke Buso bind na ci lu am solo ci lettre boo xam ne da ko bindoon booba am na kilifa gu ñu faloon fal gu bees mu bindu lettre ne maa ngi koy bind ci turu suñu borom nekk ko suñu borom mooy wax ak yow bokk na ci la mu ko waxoon ne ko yàlla nee yàlla kan nee maa ngi lay xamal ne yow mii ma ñu fal nang ma sant nang ma sant man yàlla mooy lan mu kanam nit nag bu fekkee da ànd ak mbooloo te jàpp ne yow kenn nga ci mbooloo mi lu baree ba ko bàyyi xel mu ne nag jàppal ne kon kenn nga ci mbooloo mi te dama laa teg seen kanam xool ba xam naka ngay doxal su fekkente ne danga way toog kenn xeeb ñépp danaa la wàcce ba ñëpp gis ne wàcce nga ci kaw suuf mu ne ko yow mii ñu fal yàllaay wax ci turu ak waxin mu ne ko nag ma sant waaye bokk ni ñu may sante mooy ne bu ma wor ndax suñu borom dafa am ko daf la am doyloo gum la doyloo ba tey bul waru yàlla waru yàlla mooy li nga diggante suñu borom ba ngay bañ bañ lay jox nga bañ koo def mu ne ko tam bul wor réew mi war réew mooy nit ñi am ci yaakaar ba jiital la lañ yaakaaroon ci yow lépp defoo ca dara loolu danga nga ñoo war da war réew mi mu ne ko réew moo gis nag ñu ngi ko tabax ci yamale équité équité nag mooy ku nekk li àqam mu am ko mu ne ko nag ñi ngi ko tabax ci ñàkk la ñuy wax teerlu sa gis-gis bañ wax bañ a wax bañ a bañ a wax ak nit ñi mu ne ko dénk ci nga sant ma bul nangu ku la ger mukk nag ger nag façon yu bari la daañ ger nit ci àll daañ ger nit ci kàddu daañ ger nit ci wàccuwaay yépp xeetu ger la mu ne ko nag bul nangu ku la ger ci benn façon ger ndax buñ la geree da nga yëg jël nit yëkkati ko ci kaw ba teg ko fu dul palaasam waaye buñ la geree da tax nga wàcce nit ba suufeel ko ba teg ko foo xam du palaasam loolu lu ñuy dund la di ko gis ci yenn kilifa yi ñu koy doxe gis ñu jël nit teg ko foo xam wóor ñëpp xam nañu fii du palaasam te xam nañ la tax ñu teg ko fa ger la danañ gis nit ñu jël ko wàcce ko toroxal ko toroxal ba mu ne suufe lool te fekk na yellawul loolu lu tax xeetu ger la mu ne ko nag kon teg nit fu du palaasam ak wàcce nit teg ko fu du palaasam nee na tooñ la te yàlla nee na ko man bëgguma ñiy tooñ mu ne ko nag su fekkente ne nag li ma la jox doyloo nga ko saytu ko bañ a jëfandikoo ger mu ne ko danaa la ko barkeelal ba lépp yomb ci yow ne ko tam bokk na ci li may séentu ci yow bu ñu la jiitalee ba noppi mooy nga nangoo jéggale kilifa day jéggale il faut que ñu lay tooñ gannaaw mbooloo mépp ñoo ne sa gannaaw ñëpp mënuñoo topp mënuñoo bokk tegu ci yoon léeg-léeg am ku tooñ léeg-léeg am ku jàdd mu ne ko nag na ngay ku tooñ te ku la tooñ nga jéggal ko te bàyyi ma moom man moom fayul ku ñuy tooñ bu jotee rek suñu borom nee na man maay fayul ka ñuy tooñ nee na ko tam léeg-léeg jiital la. ki xañ dee ko jox muy am solo maanaam léeg-léegi dangay nekk di wut kilifteef ci misaal contre taxaw temm ci xañ la kilifteef googe nee na ñooñu bis boo demee ba yilif leen dem nag bu tax mukk nga xañ leen seeni àq waaye nag leen jox donte xañoon nañ la ku la daggoon na nga dem jokki ko yooyu ay melokaan la yoo xam ne nii mënta ñàkk ci kilifa mu koy bàyyi xel kon yooyu ay melokaan yoo xam ne dañ koy bàyyi xel ci képp kuy kilifa ak foo mën a nekk koy séntu ci yow waaye kilifa gu bëgg fayantoo di toppante di xuloo di def yooyu ñaaree boo wutut boo demee sa kilifteef da ko ñàkk te doo ko bàyyi xel kilifa nag bu defee moom li ko war muy warteef yooyu mu tuddoon léegi melokaan yi ne ci moom am na ay àq ak yelleef yoo xam ne nii ñun ñi ñu yilif ñoo koy amel léeg-léeg nag nga gis ñu naan ni dafa war def ay warteefam ñu door koo joxe àqam maanaam tey ji misaal tey dañ naan ñun suñu kilifa gii nan defal li ñu war defal ñu door koo jox àq yi ñu ko war a jox déedéet ñun dana war a joxe àq yi di xaar nag ba xam moom lu muy def wax ne léegi yow li nga war a def maanaam si àq yelleef jox ko nit ki ndax nag def na moom war defu ko bu ci sukkandiku waaye am nga àq yoo ko yoreel yow jox ko ko léeg-léeg ci misaal nag moom mu xaw a kii ci misaal tey ñun ni la nit daa feebar ñëw ci hôpital ku nekk xam na ne war te hôpital mooy nga dagg ticket bu dee li ñuy fay nga fay ko ñu dor la faj waye ku ne xam na ne ñu faj ko akam la fam ñi ne ko kon dañu wara dañ ko wara dox akam te moy faj ko bam nopi door xol nak ay warte fam nako def wala du ko def kon nañuy jital ak ak yelleef fi ci door a xol ba xam warte fi nu mi dem ndax kooku fi ne bo toge di xaar mu def warte fam bakana man na ca dess ndax man na am amul lu ko def wala bok jàppandegul kooku motax suñu diggante kilifa yi itam nañ ci bàyyi xel lu mel noonu mooy seen àq ñun mooy ñu topp leen ndax nag ña ngee def lañu war def wala defuñu ko waaye nañ leen topp ba noppi nag door xool ba xam la ci des nañ koy def moo tax àq njëkk ci kilifa ca ñam yilif mooy ñu nangu ko nangul ko nangul ko ñu buñ alxaan da koy fetli ci baree bare yéen ñi nga xam gëm ngeen na ngeen topp yàlla topp yonent bi ak si waxoon nañ ko léegi ak ñi méngoo seeni mbir daal wax naa bu ngeen xëccoo lu mu mënti doon mbir mu mënti doon bu ngeen ci xëccoo bu ngeen ci jàppante na ngeen ko delloo ci yàlla ak yonentem ak ñi méngoo mbir mi ñu wax leen ci fa ngeen war teg seen tànk te ngeen nangu ko te bu ngeen ko waxee ngeen nangu ko jëfi kon buñ ko nangulee ba noppi nag topp ci gannaawam jeneen àq ji gis mooy ñu koy jox suñuy xel ak suñuy xalaat li nga gis muy lu baax bu ko bu ko bu ko bu ko naye jox mukk sa kilifa na nga fexe ba sa kilifa jot lépp loo gis mu nga xam ne ko defee dana gën a baax bu ko naye jox sa kilifa rawat na nag moom bu sàkkoo ci yow nga diisoo ak yow bu sàkkoo ci diisoo yow kon war nga koo jox sa xalaat te sellal ko sellal gu mat sëkk nag mooy nga sàmmoonte caag lay jariñ mbooloo mi te bañ caa xool sa njariñ yow booy xelal kilifa xelal ko lay jariñ mbooloo waaye bu ko xelal loo xam yow day dellusi ci yow kese loolu nag dafa tasaaroo ci sunu jamono ji lettre boobu mu tuddoon léegi ko ko bindoon ma ngi ciy wéyal di wax ne ne ko yéen ñi nga xam ne nii yéen a fal jiw mii ni ngeen may sant nag mooy na ngeen ko dimbale ci wala boog luy màggal luy yokk gox bi tax ngeen fal ko lépp loo xam ne nii bu ngeen ko ci jàppalee dana tax mission réussir na ngeen ko ci jàpp na ngeen jàppale mu ne bu kenn dem ca moom di sàkku ci moom loo xam ne nii njariñul boppam dong la te ñu bari ñu nag boo demoon tey ba gis président wala yu mel noonu daanaka lépp lañ fay wax doon njëriñu mbooloo mi seen njëriñu bopp lañ fay wax mu ne kon ci dem ci moom boo fa toogee di wax na nga fexe ba la nga fay wax lépp na doon luy jariñ mbooloo mi njariñ ne duggaale ci biir njariñul mbooloo mi waaye boo dem ngir sa njariñul bopp kese kese kese mooy nag loolu bu ngeen ko doxalee seen digg ak ñi leen yilif te di leen jox diisoo ñoom di leen jox seen xel seen xalaat nee na da ngeen dem dem ba gis ne féete ngeen kaw xeet yépp seen dignité dana gën a dëgër ci gox yëpp tam dana gën a yëkkati ko waaye tam da ngeen dem ba xeet yu leen jiitu woon yu baree bari ngeen dab leen wala sax ngeen dab leen ba roppi leen jiitu leen moo tax laabiire wala conseiller sa kilifa war warteef la ci ku nekk ku njilif ku nekk nga di ko def gis nga ci xadis yéen di wax ci xadis ne diine laa biir biir la laaye biir la wax ko ñetti yoon ñu ne ko kan lañ war a laaye biir mu ne yàlla koy topp ko yonente bi di jëfe ndigalam ak téere ba ak nag kilifa yi nga xam ñoo ne ci kanam jullit yi ak nag mboolem jullit yëpp nag képp koo war a laaj biir nga di ko laaj biir moo tax ñu laaj la xalaat nga ñàkk koo joxe sa kilifa laaj la xalaat nga ñàkk koo joxe loolu bokkut ci jox cër sa kilifteef rawat na nag moom su ko sàkkoo moo tax mag ñi toppoon sëñ bi léeg-léegi sëñ bi daana yëkkati kaat dañu ko ah su fekkente ne xalaat nga ciy laaj de am nañ xalaat su fekkee ndigal lan dañ koy jëfe loolu xam nañ ko ci mag ñoo xam ne toppoon nañ sëñ bi daanañ waxante yu mel moom ñoom moom yu mel noonu mooy léeg-léeg daana wax mbir ñu ne ko ah su fekkente ne ndigal la de jëfee rek lay toog moo ci topp su fekkee da nga cee bëgg suñu xalaat am nañ ci xalaat am nañ ci ay xista yu baree bari xëy na du jar ñu ciy àgg kon jox sa xalaat nga jox ko sa kilifa dafay war waaye nag na fekk nga teg ko te yàlla dong tax te nga def ko te njariñu ñëpp tax léeg-léeg am na ñuy wax lettre ouverte ci yiñ yiñ mën a diisoo kilifa ci la bokk kilifa dana xat xëy na doo mën a ci moom wala sax maanaam ña koy mooy bëgg néeg yàgg entourage ba xaashe bi yiir nañ ko yiir yër kenn mënut a àgg ci moom léeg nga jëfandikoo lettre ouverte mooy nga bindu lettre rek maanaam poste maanaam wax ko ñëpp dégg ko wala nga def ko ci journaux wala nga wax ko ci rajo wala nga wax ko ñëpp dégg ko da nga ciy mën a wax ak kilifa yi moo tax ku mel ne maanaam xasidaam yu baree bari mën nañ ko jàpp lettre ouverte ci kilifa yu baree bari ndax boo di ko jàng da gis ne wax naam ñëpp te kilifa gu nekk war nga koy déglu te noonu la donte jàkkaarloo yotoo di wax mën nga caa dégg kon lettre ouverte bokk na ci jumtukaay yi ñu mën a jëfandikoo te yu yu xereñ lool léegi ngir mën a jox suñuy conseil mu àgg ci kilifate bi kon nangu ak dégg ak topp ci suñu digganteeg suñu kilifa dafay war génn ci kilifteef ki la yilif soxla stabilité soxla sax gi maanaam dal gi ñu soxla kilifteef moo ñu ko mën a may moo tax boo génnee ci kilifteef rek yaa ngi dugal mbooloo mi ci baj-baj ak yëngutu moo tax ñëw na ci liñ gëstu ci xaddis ñu wax ne dégg ak topp ci diggante nit ci nit dafa war ci nit ak ca la ko naqari ma yàlla mu kenn kon di fekk kilifa digal loo xam ne lii moom ak ma yàlla la moom lam la digal da ko war a jëfee topp moo tax léeg-léegi dañuy wax ne ndigal bu jotee bu ñëwee dégg jafeel rek la cey top nak yow du sa responsabilité responsabilité ki la digal mo cey engagé wu motax nga gis leer ci bop nit ñi ba ñëpp ba bari japp ne li dal na mën tona ñak lañu door gis njariñu loola moo tax léeg-léeg ñu ne kepp ko da nga xol gis ne ka la gis nga ci mom mbir mo xam ne manam depp wut ak yow sa gis-gis nenañ nang ko muñ nang ko muñ nga muñ loola te gëm ne ku génn taqali ko dañoo xam boo ca faatoo da ngaa faatu faatu kon beddi ko wala boog ñàkk topp si kilifteef moom day mel ne kon ci yu mel noonu rek lañ koy nangoo mooy mu dem ba nar laa dugal ci loo xam mooy yàlla gu wér la booba kenn du ko ca topp sart bi tam bi ci topp tam mooy na fekk mu doon loo xam ko faa jëlee lu ko yées du ca topp loolu tam lu am solo la mooy léeg-léegi ngeen ñu ne kilifa gi ñun jàdd na yoon ñu ne nañ ko fi jëlee waaye nañ ko fay jëlee lañ ko fay jëlee mooy yées bàyyi woon ko fa mooy gën fuuf te nañ ko fay jëlee mën nañ ko faa jëlee ba noppi mu jur situation boo xam ne ni mooy yées la fa newoon loolu gis nañ ko ci ay barab yu baree bari moo tax koo fege bàyyi fa loo xam donte ab safaan la waaye nag gannaaw la lee safaan ba muy jur moo gën a metti moo gën a yées ñu bàyyi ko fa waaye nag safaan kenn du ko faje safaan njuumte tam kenn du ko faje njuumte njuumte yu bari rek lay jur ak safaan bu bari moo tax bu fekkee te ka fay teg mooy gën ci mbooloo mi mooy gën waaye nag su fekkente ne génn nga génn ci moom ak yàqu ma sëkk moo ci tege moom ak sécurité bu ñu ñàkk ak yooyu yëpp ak tooñ guy tasaaroo ak sax dem bay faat bakkani koo xam ne nii waruñu koo faat yëpp daf ciy juddoo loola moom dañuy bañ dañuy bëgg kilifa ga lu mu jeng-jeng ak lu mu metti metti ñu toog topp tey muñ ba keru di jot xëy nag ak nag di ci ànd ak nag léeg-léeg na ci mën nañ ko caa jëfandikoo ngir mu waayefal mbir yi tey boo xooloon yu baree bari lii ma wax daf leen a am na réew yu bare yoo xam ne nii kilifa dafaa newoon xëy na nam doon doxale mu jónne metti ci ñoom bañ jàpp ne kii daal dafay war a jóge ñu xëy xëy benn bis maanaam forcé ko mu dem waaye nag mu tas am na yoo xam ne nii boo fa demoon tey réew ma tas na lañ fa lépp ay téeméeri nangami at yu baree bari xëy nañ màbb lañ fay rey ci doomu aadama kenn xamul nu mu toll ñaata nit lañ fa ñoo fa tasaaru dem nekk ay refusé dem feneen di dund ajore buur ba rek jaar ko ci euh, nit ñi nekk ci ñi ñu jiite yu mel noonu balaa ci dugg war na noo jàngat bu baax li ci mën a juddoo ëllëg li ci mën a juddoo ëllëg kon kii jiite moom mënta génn ñii benn mu nekk njiit lu maandu sellal koku ñep dañ ko war a topp mu nek njit lo xamne ni baxna waye nak amna nag am ju bëgg wala léeg mu sabental yenn obligation yi ko war koku dam man nañ koy conseiller waye nak andak di nepp ci gannaawam te diko conseiller diko jubanti ndànk-ndànk wala mu nek koo xam dafa jiir manam nekku katchor di togn di indi lo xamne ni kenn def lo ko di sos yu mel non di def yenn yi kooku tam dañu wax ne di jalgat ak nit ñi di andi yu mel noonu koko tam dañu wax ne manis na ko topp ci li nga xam ne nii eh, dëppoo naag la yàlla bëgg waaye nag la nga xam ne nii moom ak mooy yàlla ci def kenn du ko ca topp te it nag dañ ko war a folli saa yi folli ko jàppandee ab safan mooy kilifa gi yées moom mooy kilifa goo xam moom bu doon ci lislaam dañu ab yéefar la murtad la bu dee ci sunu yi tey dañaan moom dara ñoru ko ci lañ ko jiital réew ma ñoru ko nit ñi ñoruñu ko ak yu mel noonu ñooña dañuy wax ne moom soppi leen jëli leen fa ci doole mi jëme leen fa ëllëg mooy yées foofu daal kon li ñu tënkee mooy maanaam digle lu baax ak tereb safaan dafa war ci nit waaye nag ci koo man spek tax nga def ko ci doole su fekkente ne sa doole mate na ko te du jurub safaan te jurub safaan bu ko yées wala nga def ko ci julit bi la rek mu xam man nga ko te boo ko dufee di jur bu ëpp loolu la tekkiwut mukk ne lislaam day nangu nit ki dund ci tooñ ak doy dal boppam déedéet tekkiwut loolu ndax gis nañ ci jeexit ñu ne bokk na ci xeeti jihaad yi gën a màgg bokk na ca maanaam buur bu jeng nga tax ci la bokk waaye nag dal gi nekk ci biir mbooloo mi bi nekk ci biir mbooloo mi nga xam mooy tax nit mën a yàlla mën a liggéey mën a def seen soxla loolu lislaam da ciy xër comme man doon da nga ciy xër nag ñëpp sàmm gi ñëpp ci war a xër moo tax ñuy bañ nga mën a ñoo tax ñuy bañ nga dugal nit ñi ci loo xam ne ni da nga leen di xañ loolee ba nañ bëggoon a jaamu yàlla dëggin woowu ci lislaam cosaanul li nguuruk àddina yi ñu xam ni foofu ñoom ñaari jubluwaay lañ ci am dafa am ñoo xam dañuy wax ne contrat social li ko ni mooy ñun avant ñi am état am njiit nosu dañ doon dund ci situation boo xam ne nii li ñuy wax sariyatul xaab maanaam mooy na na na bàyyi may dund ci àll bi noonu la ñu dunde mooy ku man sa moroom du morom ñëpp di xeex ak ñëpp ñu ne nag kon comme nag contrat social bi li ñu may mooy ku nekk da ngaa bàyyi say àq ak say yelleef nga cof ca ak say warteef ñu dajale ko jox ko kenn kooka moo ñu génn ci situation bu kon kenn amatul ak lu manti xew amatoo sañ-sañu génn ci moom ndax boo ndax boo ci génnee da ñoo bëgg a delloo ci lañ doon dund bu njëkk loolu ñu état totalitaire état totalitaire boo xam ne ñu gëm ne lim ñu génnee moom kenn warta mooy état ak lu manti nekk manti mel dañ naan la waroo def lu wuuteeg li mu bëgg moom ndax boo ko defee rek ñuy delloo ci situation bañ nekkoon bu njëkk beneen gisin bi ñoom dañu léegi lañ nekkoon bu njëkk kat lu baax la woon xëy na bëgg a nosu ak bëgg lu gën a baax moo ñu dugal ci ñu def contrat bi. kon nag kiñ ñu wut te boo xam ne nii lañ nekk lañ nekkoon mu jëkk ko tane kon dañ koy mën nañ koo folli fal keneen loolu mooy mooy mooy système démocratique bi ngay gis ni mooy dañ lay fal su fekkee liñ la faloon taxoon ñu fal la yaa ca ñu bàyyi la fa bis bu ñu gisee ne noppi nga caa nekk ñu folli la fal keneen kon yooyu maanaam yu mel noonu sa digganteeg sa kilifa. waaye itam nag bis boo demee ba war a génn ci ay ndigalam tam nag nga xam nañ koy defee ba du jur loraange joo xam ne nii day yées la fi newoon léeg-léegi nag kilifa dana am nga gis ñu baree bari commencé di génn ci kilifteefam loolu tam loolu ñu te isyaan madani wala boog maanaam ñàkk topp kilifteef ay daraja tam lang la mi ngi ñëk tambalé ci kaddu fi ne manam ñak top kilifa mi ngi tambalé ci kaddu de la nga gis kuy wax dal ci kaw kilifa gi wax ci wiré waxam mu dal ci kaw kilifa gi loolu tan la ci ne yaa ngi commencé wañi sa top sa kilifa la nga itam ñu feñal ko ci dox doxu ñaxtu ci gi wala sax ñu bañ liggéey wala yu mel noonu yooyu dañ koy feeñal ci kii waaye bi ci féete ko yépp daal mooy ñu dem ba nit ñi xët sart réew mi kenn dootu nangoo tënku ci lañ tëral nos ci mbooloo mi ku nekk doxe na la neex foofu nag buñ fa àggee mooy àgg na ci njobaxtanul génn ci kilifteef mooy doon maanaam nit ñi mooy mel noonu mooy feeñ ci lu mel noonu mooy dem nañ ba gis ne daal kii jiite ni muy doxale moom wax dëgg yàlla doyatu leen te xëy na mënuñ ca dara tooñ gi muy tooñ jéggi na dayo maanaam fetteelu gi mu fetteelu ci gis-gisam jéggi na dayo xeeb gi mu xeeb dayo pression bi maanaam pression foofu nag bu fa àggee la fa topp kon mooy nit ñi xët sart bañ a di topp kilifteef gi foofu nag mën naa jur melokaan yu baree bari ni ma ko waxoon léegi mooy mën naa tàmbale ci kàddu mën naa tàmbale ci dox ñoxtu mën naa tàmbale ci grève waaye xëy def ndiiraan rek wuteel bu yàggul rek am na ci weer kanam am na réew lu noonu réew moo xam loolu am na fa Sri Lanka nit ñi dañoo xëy xëy rek defum ndiiraan wutali pale ba daal dem delloo si waa wàcce ko fi par force ndax àggoon nañ foofu la ñu mën a àgg loolu nag bu ñu fa àggee mooy mooy mooy mooy isyaan madani loolu nag ñaare buy am ndax bakkan yu baree bari dana ci rot àgg fañ jëm loolu nag def naa ne maanaam nit ñu nekk war nañ koy moytu seenu dëkk loolu nag la koy indi rek mooy li ma waxoon léegi ci ñàkka a sàmmanteeg yenn yi kon lii tax foofu ñu bañ fa àgg nag mooy kilifa gu mën di doon na ngay yilif war ngay moytu lu mel noonu dafa am la koy def nga def ak gu ma sëkk ci la ngay def waaye itam teg ko ci am ak nooy waaye teg ko ci bu tar jotee nga teg nga tar loolu mooy tax loolee du mën am waaye nag nit bu dee taral rek wala muy nooyal rek di yi yu mel noonu bu ñu demee nag ba loolu am na nga xam ne lekkoon kilifteef amatul loolu tam dafa moo tax nit ñi en tant ay benn benn ak mbooloo nit ñi itam lépp seen melokaan ñu ngi koy jëlee ci seen kilifa moo tax dañu wax ne la kilifa gi nu mel rek daanaka mbooloo mi ne ci gannaawam noonu la ñuy mel moo tax léegi da ngay jàng ñun la nit ñi seen ñi ngi nit ñi booy xool seen diine xool ko seen diine kilifa. diine di mel wala boog seen i pas kilifa ci li mu mën a sopp ci mbooloo ci melokaanam ak doxalinam maanaam maanaam mën ngaa wax lu toll na téere mën ngaa bind téere yu baree bari du tax dara soppi waaye moom kilifa gi moom benn jéego bu muy dox wala wenn melokaan bu muy mel wala benn acte bu muy def bët ñu koy xool moo tax kilifa demee ba amatul nag li ñuy wax autorité dootu am te autorité bu amul nag mooy anarchie moo fay moo fay moo fay tegu kon kilifteef mooy tax mbir yi ne ci loxo ñu koy saytu kon fu mu amul rek mbir ma tas na kon li ñàkk kilifa day tas mbooloo mbooloo moom doon gi mooy takk gi takk takkoon gi takk mbooloo léeg-léeg itam bu ñu ba kilifa gi expérience mayu ko àgg na foo xam ne daal moom la mu xamoon lépp def na ko kon xëy na amul lu bees lu muy proposé nit ñi loolu itam dana tax yëf yi commencé di soppi ko lu woon kaw di féete suuf ñu dem ba mu yàgg moom tam ba tey anarchie civilisation gis mbooloo nga gis yëpp ñu xëy xëy tas état yi nga xëy gis yëpp ñu xëy xëy réew ma tas coow juddu fa mu ngi tàmbalee ci kilifa ñàkk kilifa état moo tax moo tax moo tax njiit ci am réew njiit ci mbooloo dafa am solo dañ am wax ci état mooy mooy mooy mooy xiyaabu sulta maanaam état dina fi ne ñu mu ba noppi autorité dootu fa am mooy kilifa nga amul autorité ku di foo xam du dogal du mënta dogal mënta dogal mënta kooku mooy amatul autorité kooku gilifteef lam jilif la ci ci tas ci lay mujj kon daal xam naa ne oustaz yooyu kon tomb bu am sol la ni ma ko waxee woon nag xëy na liñ ci rotal ni aw gisiin la ak dellu ci ñi nga xam ne bind nañ ci mawdon bi def ci ay gëstu kon xëy na bunt la bu ñu ubbi rek boo xam ne ni ku nekk war nga caa mën a indi sa loo ciy yokk waaye daal marqué li ko gën a mandargaal mooy nit ñi kilifteef yuy dellu gannaaw ak kilifteef yu bari ci menn mbir ci xalaat yi ci doctrine yi ci fànn yu baree bari da ngay gis ne kilifteef nag bu limoo rek kilifa dootu fa am kilifa moom li cëpp genn lay doon wala boog mbooloo mu nekk benn kilifa la ñuy am moo tax lislaam di bañ ñaari kilifa ci noonu la koy bañe donte ñett nit ñaari nit ñett nit ngeen na am ku jiitu nekk ci kanam mbooloo bi ñu des topp ci alxuraan itam di ñu xamal ne kilifteef yu bari mën tam ci mel mbooloo moo tax mu ne yàlla jàll jenn dong la mën nekk yàlla mooy kilifa ñëpp kon jenn yàlla rek moo mën a am kon liy yàqu moo te gis ne ñay dox doxinu kilifteef ma ngi cay commencé bari jàppal ne xëccoo ma ngay commencé dugg soxorante ma ngay commencé dugg bañante dana ci juddoo kon fu ñuy mujj mooy jox te mooy échec ñoo ngi jéglu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu الله وبركاته المدير فالو بو حسن ngoy santat bu baaxa baax ci ak am solo gi nga xamante ne bi waxtaan bi am na ko jot naa ne ku fi toog tey rek jëriñangu bu baax a comme ni mu ko daanalee mu waxtaane muy kilifa ci ne kilifa su amatut loolu li muy tekki rekk mooy anarchie ndax mooy li takk mbooloo mi te ci ni mu ko ubbee woon day mel ne am solo gu kilifa googu day mel ne dañu koy commencé di ñu wax bu dee duñ ko tàmbalee ci famille bi xale yi ñu won ñu ne dañoo war a am ay àq won ñu ne jigéen ñi dañoo war a am àq boo ko yéegalee ci kaw tamit dañu koy waxte baat yi tamit leer gi day xaw a des dañuy wax liberté dañuy wax ndàngam yooyu yëpp boo ko boolee day mel ne ak kilifteef pour nga boole ko dana xaw a jafe te xam nañ ne bu dee ñun en tant que ay jullit ñun alxuraan dañoo wax ne nañu topp yàlla topp topp kilifa yi kon loolu ay xel la ci biir waxtaan wi moo xamal ñu warteef yi nga xamante ne bi war na ci kilifa gi ak kilifa gi niñ koy tànne waaye tamit ñun ñi nga xamante ne bi ñoo ndax baatu jiital la jëfandikoo ndax day mel ni sunu diggante ak moom day mel ne dañ koo dénk relation bi day mel ne relation boo xam ñun dañ ko dénk ay mbir mu jiital ñu kon ñun tamit am na ay àq yoo xamante ne bi daf ñoo war ci moom te mooy dañ koo war di ko topp mooy mooy doon njariñul mbooloo mi te bañ di jiital rek suñu njëriñul bopp loolu tamit ñu bàyyi ko xel bu baax a baax kon sëñ Fallou ñu ngi santaat bu baax a baax ci waxtaan wi yàlla na suñu borom yokk xam-xam bi yokk dañuy tele ne suba waxtaan wi nga xam ne moom moo fi nar a am mooy al jumudul fiqhi wa athaaruhu fil fatawa te ku ñu wax docteur Abdoul Ahad Sané def naa ñu bari xam nañ ko moo ñu defal waxtaan wi kon ñu ngi leen di santaal bu baax a baax di leen gërëmaat bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ak Oustaz jërëjëf euh, sëñ ci waxtaan am solo yi ngi indi loon tey xam naa pour euh, njëkkanteeg wax rek dañuy jox euh, soxna Ndeye Gassama muy indi kàddu école suñu sooy bu Mbàkke kon soxna Ndeye bisimilah. aousubillahi mina seytaan aousubillahi mina alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziyaare bu baax di nuyu kilifa yi fi fekk di rafetlu tamit émission bi am na solo lool dëgg yàlla am jël nañ ci ay bind yu bari jëm ci wàllu kilifteef ak ñi nga xam ni ñoom nga yilif yaakaar naa ne tamit ku fi jógee soo demee delluwaatee di nga am loo yóbbu ñu jàngee ci lu bari nag di nuyu sëñ bi nga xam ne moo baax di siyaare mbooleem ñu nekk ci waaw ñoo ngi bàyyi ko école Serigne Soy bu Mbàkke mu nekk Touba Njaareem foofu lañ bàyyi mu nekk école franco arabe si mooy eh, dafa bokk ci école yi nga xam ne dafa dafa sukkandiku ci programme bi nga xam ne moom la état joxe muy programme EPA bi moom la ñuy jàngale ñi ngi ko sos 2014 eh, li ko ma ngi am tamit di eh, am ay candidat yo xamanteni si dañuy def examen ok jërëjëf soxna Ndeye Gassama ci kaddu école bi nga indoon école suñu soñ bu te nek daru tanjil di profiter rek di sant bu baax dal euh, ak oustaz yi andal oustaz seigne mbay oustaz Cheikh sar et madame kum xamne ñi nga xam ñokay jallé ba tax ñu mën ko dégg muy télé yi ak euh, chaîne YouTube ak euh, Radio. yi Touba TV def en direct chaîne YouTube yi TV Touba Vision TV Rava TV Académie Minan Siwal TV Touba Monde TV Touba Bro TV en direct de dañ koy rediffuser une FM Beno FM ñun ñëpp kon ñu ngi jàllale waxtaan wi fi mu invité ci maktabatu Cheikh Khadim Daaray Kaamil di sandaat baax sëñ bu Boussa Assane ci waxtaanu am solo bi i loon tey di du ko sant ko digg yàlla am bañ dalay def conférence bi tey saa bu ko wootee rek ñëw ànd koo ñun kon yàlla nañu ko yàgga fekk itam dajateeg ngërëmal sëriñ bi ah, di sant bu baax oustaz góor gi kam nga xam ne moo doon modéré jotaay bi moom tamit wax dëgg yàlla am modération bi am na solo lool ndax dañu leen te thème suba bi rek mel ni docteur Abdoulaye Sané moo ko def incha allah suba jàmm mu nekk le dogmatisme incha allah rabbi taala dog ba suba jàmm incha allah jërë jëf ñu tàllal loxo yi suñu Fallou Bousso Assane ñaan ñu yewee